asalaamaaleykum mbokk internet Leewtoo TV ginnaaw ba ma leen nuyoo di am contentement ak mbégte janoog yéen chaque jour ngir nit leen li a fës ci boobu xibaar yi ci noonu nag damay jël nuyoo bi di jiital ko ñaanal jàmm ju baree bari Mbaye Babacar soo ma fayee rek daal di leen di jukki li a fës ci boobu xibaar fay naa la nuyu bu baax a baax mbokk yëpp yi ñuy topp ci Leewtoo TV ñaanal leen jàmm ak salaam wante maa ngi nuyu sama dëkk bi Diourbel Assane Wala nuyu naa la Ndeye Mbacke di la fay di nuyu nde mam di nuyu Mbaye Babacar di nuyu internetu Leewtoo TV amaan mbégte jàkkaarlu ak ñoom. mu ngi noonu vendredi 26 mars 2021 journal suñu làmb xëy ci xëtam bu njëkk bien affûté son entourage confiant ki nga xamante ne mooy sëll bu ndaw di Ama Baldé dans la peau d'un futur roi mbay Babacar. suñu làmb moo def boobu la gëstu ci ki nga xamante ne bii moom mooy Ama Baldé di doomu Fallaye Baldé nee xale bi pare na ci côté entourage am mooy ñi nga xamante ne bii ñoo ko wër am na confiance ci xale bi mu mel ni Ama Baldé sol na mbubbu roi des arènes am ba noppi asam. dëgg la Mbaye Babacar bien affûté son entourage confiant. Ama Baldé dans la peau d'un futur roi noonu la ko journal suñu làmb titré nee na depuis ba combat bi taxawee combat bi nga xam ne nii war na dox ci moom ak euh, Modou Lo journal suñu làmb nee na depuis lors Ama Baldé dafa changé comportement dafa gën a tey mi ngi entraîné sérieusement mi ngi récupéré waaye li mu doon euh, fi mu doon dem daf ko wàññi li mu doon wax également da koy xoolaat nee na Ama Baldé daal dafa changé euh, comportement totalement loolu rek ngir mu am victoire devant Modou Lo ci seen combat royal bi di ñëw. adversaire bi mu am moo bi moo ko waral euh, du lu ndaw day jàkkaarloo ak euh, roi des arènes te Modou Lo xam na ne du n'importe qui ci làmb ji donc soxla na euh, concentration bu baax pour que mu mën ci am victoire. ma nga noonu nag ca Eumeu Sène lañ jëm Jibril Kandji coach de Eumeu Sène ki nga xamante ni mooy coach nga ki nga xamante ni mooy Eumeu Sène borom taay ci nga borom def lu wér lam xam la ci journal bi mooy on travaille sur toutes les de boxe. Mbaye Babacar mu mel nii ñu ngay woote xeex ñoom ñooñu. waaw Jibril Jibril Kandji moom mi nga xamante ne bii mooy tàggat Eumeu Sène mi nga xam ne moom moo jiite écrit tay si nga Jibril Kandji li mu xam ne mooy ñoom ñi ngi liggéey bu baax a baax li nga xam ne mooy wàllu box ndax combat bi day metti te du yomb asal. dëgg moom moo nekk euh, coach équipe nationale bu Sénégal bu boxe. moom nag yàgg na ci làmb ndax nekkoon na Fass euh, coaché na Gris Bordeaux Tafa Gueye ak mbëri Fass yu bëri euh, maintenant nag euh, Eumeu Sène daf ko jëli pour mu ne ko ci wàllum boxe ci combat bi nga xam ne mi ngi war a dox ci digganteeb Lac de Guerre 2 Jibril Kandji nag moom la journal suñu làmb jox kàddu tey li mu wax nee ne ñi ngi travail technique yu boxe yëpp moom ak Eumeu Sène nee na daal Eumeu Sène pare na ci wàllum boxe pour jëflanteeg kii di Lac de Guerre 2 moom nag dikkaat na ci carrière Euh, euh, yàgg na topp di ànd ak euh, Eumeu Sène ndax digganteem moog Balla gay 2 ànd nag moom digganteeg moog Bombardier ànd nag moom waaye digganteem moog Modou Lo également ñoo ci àndoon. kon daal yàgg na yàgg nay yàgg na ko entraîné moo tax xam na ko bu baax a baax nee na daal li mu ko gisee am na confiance bu baax ci mbërëm mii di Eumeu Sène. ma ngi noonu na dañuy dem ba Géejuwaay rek fekk fekk nga xam te mooy Salif Sakho Sa Thiès Roq nga xam mooy Balla Gaye 2 défaite par Malick puis Boy Niang 2. Sa n'a plus droit à l'erreur ginnaaw ba mu lancee ñaari yoon ci ñaari mbër yooyu nee nañ Sa waratul juum te warul juum Mbaye Babacar. journal bi moo wax loolu suñu làmb gannaaw ba ko Malick Niang daanee euh, kii di Sa Thiès tamit kii di euh, Boy Niang tamit daan ko mbër mii di Sa kon amatul droit def erreur ci combat bi nga xamante ne bii moom la jël ci digganteem ak Moussa Ndoye bu Yara. dëgg la Mbaye Babacar defee par Malick puis Boy Niang 2 Sa Thiès plus droit à l'erreur noonu la ko journal suñu lamb titré nee na euh, Malick Niang daf ko daane le 1er mai 2013 euh, Boy Niang 2 stoppé ko le 11 mars 2018 donc Sa amatul droit def erreur mi ngi war a jëm nag ci combat boo xam ne nii euh, mi ngi ci war a jaflanteeg Moussa Ndoye ñu fàttali nekk Sa Thiès jot na def quinze combats am ci treize victoires deux défaites Mbaye Babacar. macha allah bi rafet na waaye également euh, comme dafa am ñaari défaites pour le moment te Balla Gaye lay roy war na gën a góor góorgóorlu ba euh, gën euh, a carrière am gën a rafet ci ci ci ci làmb ji. daal ko fa yemale Mbadou. mu ngi noonu MMA la jëm contre Mehdi la forme à Dubaï mi la mu war jàkkaarloo ki nga xam te mooy Mehdi Bardi la set incha allah Reug na Mbaye Babacar. ma nga foofa jot Dubaï di tàggat di Reug Reug gannaaw ba mu amee bi jëgmal dëgmal ñeenteelu combat am nag ma a baax la Mbaye Babacar combat noonu la ko journal suñu laam waxee nee ne Reug mi nga xam ne nii war na jaflanteeg euh, Mehdi Bargui di benn iranien le 7 avril ci Singapour nee na Reug Reug daal mi ngi respirer la forme nee na nag moom mi ngi entraîné ci benn salle boo xam ne nii mi ngi tudd Dubaï sport centre nee na salle d'entraînement bi ay stars yu bëri ñoo fay tàggatu ñu mën ci tour tennis woman bii di Serena Williams wala basketteur bii di LeBron James nee na stars yu bëri daal foofu la ñuy eh, tàggatoo pour préparer seeni combat nee na nag rëg-rëg bu xëyee dina def footing dina daw huit kilomètres eh, diggante hôtel bi mu nekk ak eh, centre boobu muy entraîner waaye ngoon gi bu jotee dina def natation. ma nag premier lutteur de Thiès. pour le quat avril Modou Anta un triple défi dans un piège bu mel ni doomu Ceeskaay boobu benn dëkk na ñaari gaar am na ñetti défi yu mu war a relever jour boobu Mbaye Babacar. mooy mbëru Cees bi nga xamante ne bii moo dara njëkk bari ci saison bi ren kañ lay bëri la 4 avril foofu ci arène national digganteem ak doomu Boy Kayre bii di Diène Kayre incha allah Assane. mu mel ni am na ñetti défi yu koy xaar. dëgg la Mbaye Babacar ñetti défi yu koy xaar moom mooy euh, Modou Anta mi mi war a jëflanteeg Diène Kairé le 4 avril nee naan moom mooy premier lutteur boo xam ne nii bu dëggee jógee Thiès tey bëre ci saison bi. nee na loolu pois la te défi la boo xam ne nii war na ko relever nee également moom mooy grand euh, lutteur boo xam ne nii moom moo gën a am taay wala am ëpp dayoo ci Thiès te loolu également poids la bu mu war a bëreewaatee nee na war na bëree également pour éviter défaite ndax défaite mën na compromettre carrière waaye ñu fàttali ne depuis deux ans ngi nii Modou Anta bëriwul donc day def retour te retour bi war na ci signer benn victoire ma ngi doon nag contre bébé Diène Kaïré la ci nar a dajeel Bismindo yi. Edouard Edouard <laughs> Abdou Njambaan ak ki nga mooy jibi SOS pour les jàpp pour les champion de jàmbaar Baye Babacar. waaw euh, champion yooyu ñoo nekk fële ca écrit jàmbaar ñu mën ci jàpp ki di Bismindo yi ak ki nga xam ne mooy Edouard Dimle Joox Babu Njambaan ak jibi mu mel ni ñoom ñeent ñi gëj nañoo bëre te am na war nañ leen a jox combat. ñu bëri ñoom tamit Assane ñu ngi woote SOS. dëgg la Mbaye Babacar Bismi Ndoye Edouard Dimle Babou Ndiambane SOS pour les champions de jàmbaar de Dakar noonu la ko journal suñu lamb waxee nee na euh, mbër yi daal euh, dañoo nekk ci équipe boo xam ne nii dañoo euh, jafe wutal combat nee na Babou Ndiambane cinq saison blanches la tegale ndax dernier combat mi ngi amoon vingt mais 24 mille 2015 mu daane woon ci Jordan depuis lool mënul waat bëriwaat. nee na également Bismi Ndoye mi nga xam ne ni moom mooy leaderu écurie boobu moom mi ngi gëj a bëre le 8 juin 2013 à Bercy moomu Elton moo ko fa daane woon. Edouard Dimle jeex également Dimle également mi ngi euh, pertoon dernier combat bi contre 13 Ndiir le 11 mars 2018 nee na euh, bi daal écurie bu am ay jafe-jafe la te soxla nan benn SOS boo xam ne nii genre promoteur la dikk dimbale leen jox leen ay combat pour ñu mën a revenir. promoteurs yi war nañ leen bàyyi xel bu baax a baax ndax ñu mën a ñëwaat ci làmb ji. exact ci làmb ji leen bokk promoteurs yi war na leen gestu pour ñu mën a dund euh, comme seen moroom yi ci biir làmb ji. ma nga noonu na leen promoteur yi gestu waaye ginnaaw ba ñuy ubbee làmb ji le premier mars bi passé Lamsa a repris a repris ses entraînements Mbaye Babacar. écrit Lansar di écrit ba nga xam ne ñëpp leen ràññee ci làmb ji ay champion yu mag nag nekk fa Assane mu mel ni dooraat nañ seen ay entraînement gannaaw ba saison bi ubbee. dëgg la Mbaye Babacar dooraan nan seen entraidement depuis mardi passé lañ ko débuté euh, journal suñu lamb ne nag euh, début entraidement boobu nekk réel te fekkee na ko Tigre Junior fekkee na ko Quench ak Tidiane Faye ñoom ñëpp ñu ngi fa waaye nee ne Siteu dafa absenté ndax instant boobu mu ngi woon jonwaar ci dëkkam fëgale également fekkeewu ko ndax mu ngi États-Unis waaye nag nee na avant ñuy démarrer seen entraînement li njëkk a def mooy dañoo ñaanal benn seen euh, ancien coach bi di Aliou Diop ndax ñu fàttali ne dafa décédé temps yële euh, léegi nag avant ñuy démarrer nee na euh, sànni nañ ko ay xulwa alaawu avant activité yi di démarrer. kóllëre gannaaw lay féete. dëgg la. mu ngi noonu nag gaal gi Adrien Senghor en collision en vue. mu mel ni ba Jax di tëgg fee nga xam te ne mooy gal teg fa mise 3 millions Adrien Senghor aussi ubbi na teg fa 1 million Baye Babacar. mu mel ni euh, ni nga ko waxee Ndeye Mbacke noonu la terrain gaal gi ak Adrien Senghor ñaari place la ya nga xam ne day tëgg ay làmb simple mu mel ni Assane ñaari la ñaari place yooyu le 28 fu ci nekk am na làmb. Euh, amateur yi nag léegi ñooy def seen choix ku ci nekk fa ngay dem. dëgg la Mbaye Babacar gaal gi et Adrien Senghor collision en vue le 28 mars noonu la ko journal suñu laa laam waxee comme ni nga ko waxee. gaal gi ak Adrien Senghor yëpp ci Grand Yoff la nekk di ñaari stade yoo xam ne ni dañuy accueillir lutte simple léegi nag ñu gis fa ne euh, le 28 mars bi nar na am euh, collision ci diggante Jax mi war a tëgg gaal gi ak benn mise 3 millions. ak waa Adrien Senghor ñi nga xam ne ni association ba fa nekk ñoom ñooy ubbi seen saison foofa ci ak avec une mise de un million léegi nag journal suñu laa mu ne collision nar na am te lii war nañ ci xool nan lañ koy euh, fajee pour que euh, ñaari euh, gala ci même jour bi ci même lieu bi ñu mën ko éviter. ñu ci ñu mën ci bàyyi xel bu baax a baax. ma ngi lañ jëm. 17 ans de carrière 13 victoires l'art de guerre et la poisse des revanches mu mel ni kooku di le puncheur de waaro rek saa bu demee du mën a sa dire revanche mais bu demee ngir leeralaat defet la cay jële Mbaye Babacar. journal suñu làmb def gëstu bu yaatu ci mbër bii di Lac de Guerre numéro 2 gannaaw ba mu defee fukki at ak juróom-ñaar ci làmb ji def ci li nga xamante ne bii moom mooy 15 euh, 13 victoires du moins maanaam am na ci fukki ndam. ak ñett journalu suñu làmb journal record du moins mhm. ñëwaat na bu baax a baax ci carrière am ki def gëstu boobu mooy Abou Ndour dëgg la Mbaye Babacar Abou Ndour moo ko def ci journal euh, record dafa pratiquement ñëw ci carrière u euh, Lac de yëpp nee na nag 17 ans de carrière 13 victoires Lac e et la poisse des revanches nee na daal Lac 2 revanche jigu ko dara waaye nag peut-être du revanche waaye clarification lay nekk ndax Lac de daje na ak Eumeu Sène première fois ñu niil deuxième fois bi Eumeu seen daane ko ñu war a daje nag le 4 avril xool ni muy demee daje na également Modou seen première fois ñu niil deuxième fois bi Modou daane ko nee na daal revanche wala clarification souvent du jik euh, Lac de Guiers mi ma nga noonu Assane di la jaajëfe bu baax loolu moo nekkoon li gën a fës si bopp xibaar yi mbay looy tàggatoowee jaajëfal ñëpp ñaanal ñëpp jàmm di leen dig daje incha allah bu ci yàlla àndee ci beneen revue de ren asan Waalo merci Ndeye Mbacke comme d'habitude di remercier waa Linguère di remercier Yacine Fall <laughs> Fama Massour équipe bu technique bu Leewtoo yëpp jox dig daje internet wu Leewtoo TV si yeneen jamono ma ngi noonu nag leen jaajëfal bu baax a ñi ma fegguroon ci nga xam ne mooy revue bi Mbaye Babacar borom Linguère e borom Diourbel kontaane naa la bu baax a baax a baax Assane Wala boroom Linguère maa ngi lay bëgg doom nday Yacine di bëgg sama cameraman bu ñaawal boobu Mansour Far loo fi mel bu baax. bul fàtte suñu infographe bi. ko Cheikh Ahmed Tidiane. kontaane naa la Kébé Kébé Jaxara. bare bare bare Fama. Matu Yaasin yéen ñëpp bëgg naa leen Ousmane Fall sama xuloo waale waaw Ousmane Diallo jërëjëf ak Kébé maa ngi lay bëgg bu baax suñu gan boobu la naan dalal ak jàmm leen jox dig daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV.